commence par par rapport ak la présidentielle à venir. Euh, tey jii nii seen bëgg-bëgg mais surtout euh, les difficultés rencontrées jamono ji sur le terrain parrainage beeg euh, convaincre les les Sénégalais. Mm-hmm. oui merci beaucoup parce que euh, difficulté bu ci nekk mooy injustice notoire bu ñu mm-hmm. lu war a injustice notoire bi mooy gis nañ yenn candidats yi. ñu déclarer seen candidature. pour nekk président bu ñuy def seeni tournée dañ leen di empêcher. ñun arrivé nañu dama doon dem Kolda si yoon bi la ñu oo téléphone te ñoom bu ñuy def seen tournée kenn du leen arrêté. ñoom ñan waa nguur bi. mais est-ce que bokk na. Hmm? yéen li ngeen di def c'est de la politique. ñoom ils ont. mais euh, mais bien sûr parce que. la politique dégg ñoom merci merci beaucoup mission. la preuve mission ils sont en tournée économique. la preuve la preuve la hmm. preuve. Amadou boobu mu wax léegi dans les normes. Hmm. bañ ne ko léegi mooy candidat lu mu waroon def démission. libéré poste bi. bien sûr pourquoi. parce parce qu'il joue double rôle double casse-tête la yor. mais am na ci droit. violé wul benn droit. mais la yor léegi pour mun a camoufler casquette campagne bi lay mën a génnee casquette premier ministre bi. politique lañ nekk ah. mais c'est sa borom doo ko baala. Ah. mais mais mais mais na. xëy na xëy na voilà ak caay-caay politique la mais. mais loo rafetul. rafetul mais pendant ce temps bu ñeneen ñi maintenant di tourner ñu leen empêcher. loolu moom jaaduwul. mais jaaduwul. mais aussi on est nous sommes la circulation Khalifa Sall boo gisee keroog caravane bu rëy bi parce que ñu téye ko mu nekkoon bàyyi mu ñëw mais mais pourquoi pas mais pourquoi pas mais du yoon. Hmm. du yoon nous sommes tout à l'heure yaa ngi koy wax monsieur monsieur Ndong mhm. yaa ngi naan sànq ba mu waxee Alex Tobi da nga ne c'est une pensée personnelle et finalement faut terminer ci Rousseau une pensée aussi personnelle <laughs> c'est contradiction ma rappelé la ko gis ngeen dëkk bi li fi nekk lañ war a bàyyi eh, dëkk bi li fi nekk lañ war a bàyyi ah, ah. mais mais parrainage euh, merci merci parce que euh, ñun suñu président Amadou Thiaw euh, Amadou Thiaw 2024. yéen a mayoon Pape Djibril Fall ñoo ko ñoo ko jàppale woon financé ko. Euh, euh, defal ko lépp ba mu nekk euh, tey député après mm-hmm. finalement voilà li xew-xew. Mm-hmm. waaw léegi ça c'est du passé moo tax bëggoon ci. Ah, avenir ngeen di xool voilà ñun moom amuñ tànk ginnaaw tànk kanam la ñu am. Mm-hmm. maintenant président amul coo def ni parrainage bi ñuy wax zéro virgule pour cent yi. moom nee na nee na dañ ko waroon def cinq pour cent. loolu la wax moom. parce que moom tiitul parrainage. alhamdulilahi rabbil alamin non mais ban méthode ban mécanisme ngeen teg en place pour mën a éviter les pièges parce que aussi un parc expérimental wax loolu de. affaire bi bëri ay c'est-à-dire non pièges yooyu ngeen di wax état bi moo koy def rek pour recaler mais présentement l' état joue joue ce rôle de filtre. oui mais c'est normal parce que aussi on peut pas aller avec 200 candidats. mais c'est vrai c'est vrai looloo tax nag président Amadou Thiaw ne dañ ko waroon def 5 pour cent. pour mu gën a jafe mu gën a jafe ku mënul am 5 pour cent parrainage kooku mënut a matal war a mën déclarer sa candidature président Amadou Thiaw loolu wax. kon cest à pour ainsi dire jamono ji moom parrainage jaaxalu ko bien sûr bu ñëwoon suba la déposé ñu déposé incha allah bu yàgg